ko fekk mais moom dafa gën a creuser le fossé mais déglul gàmmu démb bi fàccaam hmm. dañ la yónnee ay kilifa ay kilifa diine ak ay waaraatekat ñu tegal la seen kàddu ci bësu gàmmu bi. Hmm. mais da tiit tu naka la Sénégal mën a accès fii naka la kilifa bu am stature bi toog ci mbooloo bu ay moromu yaayam nekk. Hmm. ay moromu papam nekk yàlla suturaal ko ba ñu toog di ko déglu mu tenir yenn propos yi que je n'ose pas. dire ici mais ay nit ñoo ma ko envoyé ne ma euh, xoolal lii mais tu envie de pleurer parce que tu dis fan la Sénégal nekk Alaaji Ibu Saaxo daawul gàmmoo nii Sëriñ Sàmbay daawul gàmmoo nii Baye Abdou Aziz Sy Dabakh daawul gàmmoo nii Sëñ Abdou Lahad daawul gàmmoo nii donc moralement mm-hmm. ce pays est en et li Diomaye def acte bi mu posé dafay wone ne que ce pays est en parce ah, que su ah, ah. fekkente ne et député yi ñoo doon sañ loolu sax on passe ministre mais le président de la république c'est pas n'importe qui tey président sañ na signé décret bés bu jot mu revenir ci kàddoom ne dama doon naxante ak yéen du euh, naxante nag dama doon kii c'est grave quand le premier ministre ose dire teg teg deal comme disent les enfants comme disent les enfants waaw teg attends c'est grave où va cette république donc ëllëg euh, xool ko ci borom kër rek borom mm. kër buy njubla nga waa bon su ñu demee ba xam ne euh, papa dafay njublan bon respect bi daanu na dara desutu fa xoola su jëndal leen ay oto tabaxal leen ay étages et cetera ils te diront merci oui. mais le respect n'est plus là alors que ñoom dafa am estime buy leen yàlla nattoo mm-hmm. askan bi am ko ci ñoom te dara xewagul loolu moo rëy cest à yàlla daf leen nàkkal mm-hmm. ñoom il devait être à la hauteur de ce don de Dieu loolu mooy sant yàlla yàlla nakkal la ubbil la nga ne alhamdulilahi rabbil alamin yàlla jàppale la comme nu mu ko defoon yonte yàlla Suleymaan mhm. ba ko waa ji ñëwee wax ko li yàlla nara def mhm. daf ko ne su ma ko yàlla joxee bàyyi maax moom de antanu ma ko yàlla bëgg ci tontu boobu ndaxte óoluwuloon boppam ci loola mhm. mais ñi dañ leen a tàccoo tàccoo tàccu tàccu ba ñu ne ñoom la ba ñu ne ñoom la. jomaay suy dox sax mooy beew bi nga doon wax sànq. Ah, waaw <laughs> mu bëgg a dugal euh, mais ay xale lañu euh, mais xale amul. Euh, ay xale ñoo tabax àddina. Mm-hmm. yonent yàlla Muhammad ba muy oote xale la. 40 yonte yàlla Issa ba muy ootee trente la amoon. Mhm. Aline Sitoé Diatta ba muy def li muy def ba ñu koy tudd vingt ans la amoon. na Ndaté yàlla vingt quatre ans la amoon. Mhm. trente la faatu ak tur bi li muy rëy rëy yëpp. maam Diarra Bousso liggéey bu rëy bi maam Diarra Bousso bu rëy donc xale amul. Mhm. yàlla moo lay barkeel. ubbil la bunt bi. nga sant ko oyof toy. delloo ko lépp mu jàppale la. tey nag. Sonko a raison pas au sens économique mais moralement ce pays est en ruine mm. et le réarmement moral bi Sénégal soxla tey ñoom su ñu teg woon ci yoon ak a yomb mais peut-être am nañ ay chance su jubbantiku waaw peut-être oui ñoom jub jub jubal jubbanti la ñu woote peut-être qu'ils peuvent faire du jubbanti waaw yàlla na yàlla jàppale jàppale leen ñu jubbanti parce que on a on a besoin que dëkk bi dox on a besoin que xale yi souffrance bi ñu am. mu wàcce leen imaginer son jomaay euh, bi ñu ko falee ba léegi li mu voyagé ñaata voyage la def. ñaata ñaata sëriñ la seeti. presque il a fait le tour des familles religieuses. est-ce que dem na Sandaga ci marché ambulant yi. Sandaga est-ce que dem na Colobane ci marché ambulant yi. Colobane premier ministre moo fa demoon. est-ce que dem na ci Jakartamaan yi. est-ce que on a imaginez tey Fatiam. Diomaye defoon un appel ci discours am bi à la jeunesse daane d'ailleurs yéen ndaw ñi dama bëgg ñu toog je vous donne rendez jour au stade hmm. xale yi ñëw mu seeti kilifa yi waxtaan ak ñoom ne dama bëgg ñu wax ak xale yi ki mu toog kilifa yi toog mu tenir un discours discours comme na ko Sékou Touré doon waxee hmm. discours comme na ko Nelson Mandela doon defee hmm. discours comme na Euh, Fidel Castro doon defee y a eu des discours qui ont transformé le monde mmh. l'appel du 18 juin du général de Gaulle benn appel mu mobiliser toute la France libre autour de ce discours yàlla ubbil na leen lu day noonu mais ñoom ñoo koy fooyee maintenant tu viens Sénégalais yëpp toog kilifa yëpp toog nga leen di di naxanteex ñoom ci biir kàddu alors que ñi lay déglu ñoo la gën a muus ñoo la mag sa couleur bët sax dañuy jàng yow li ne ci sa xol à travers sa gestuel sa wax am na koo mënul fen man Abdou Khader su ma toogee ci télé bi di wax naa xam ne ku ma ëpp xam-xam foofu mu may dégg loolu day tax nga ëmbali ci sa wax nga xam ni ngay waxee. mais maintenant tu fais le tour du monde tu par partout alors que fi détresse bi nekk dëggantaan waxoo ak ñoom per de famille yiy souffrir mais Diomaye mën na leen adresser la parole te xam naa ne courant bi hmm, xam naa ne ndox bi. xam naa ne location bi xam naa ne am na sénégalais sax yu dul añ mais à tous ces sénégalais je tends la main nañ laxasaayu nañ def nii nañ def nii nañ def nii c'est un discours qui allait nit ñi ñi xiifoon sax dootuñu yëg ne xiif nañ. effectivement yenn saa yi nga xiif ñu la dara xiif ba jaaree fa dem. waaw mais nga ñëw jël pouvoir bi bon tu divises le Sénégal en deux ñi ànd ak yow ñu àndul ak yow. Mhm. déjà ba ngay fal ñu ànd ak yow rek nga fal. tu exclus tous les autres le ministre de la santé vient dire que CV yi dama koy càmbar ku farul man doo doo liggéey ministère de la santé ma ne ko kon xanaa kon soo amee ñaari malade ki bokk Pastef ki bokk APR xanaa da ngay faj waa Pastef bi bàyyi waa APR bi c'est la logique hein. c'est que le ministre de la santé. de la santé a dit oui. alors que yow santé lañ la dénk nga ne damay segg CV yi ku segg CV yi naka lay def malade yi. xanaa duñ yegg foofu nag. ah mais attends. logique pour logique surtout dès que su ma jotee ay CV damay def enquête mu jaral la ko su ma defee enquête ñi bokk Pastef laay jël ku bokkul Pastef du ma la jël mais attends je dis attends su dee docteur la du dem ci moom parce que soo xamee ne wala mu seetaan ma si sa émission bi mais attaque Sonko su ma ñëwee ci cabinet mu pikiir ma ma dee c'est ça l'animosité c'est comme ça qu'on cultive l'animosité dans un pays alors que Diomaye c'est le président de la République en résumé ils sont mal Hmm? ils sont mal partis ni ñu commencé baaxul. oui avant même ñu toog ci pouvoir bi ci opposition bi ñu wone ne que am na lu des bon bu ñu ñëwee ci pouvoir bi nag loolu dafa confirmé wu les gens ont yàlla naa juum je l'avais dit fii si ce plateau. oui ci boobu moo nekkoon d'ailleurs le premier discours du président Diomaye. voilà yow nga fësaloon yaakaar bu rëy ci moom. parce que pratiquement li mu doon li nga doon xaar moom la wax li nga yaakaaroon moom la wax. oui mais et je je t'avais si que les Farba et les Koura. j'avais dit qu'il y a plus de Farba et de Koura chez Sonko Diomaye que chez Macky. et les Farba et les Koura sont en train de se manifester. Mm. Farba ak Koura ils ne doivent pas être au palais ils peuvent être tes amis ils peuvent être dans le parti ils peuvent te seconder si ay niveau yi mais ils ne peuvent pas gérer le pouvoir parce que le pouvoir n'est pas fait pour les Farba et les Koura. malheureusement au Sénégal récompense politique la moo tax bés bu ne ñu fal nit ñëpp taf seen gémmiñ ñëpp taf seen gémmiñ ne naka la ñu mën a falee kii parce que teg na ay actes yu woon ñëpp ne waruñu ko fal est-ce que sa xel dafa dem ci Cheikh Omar Diagne par exemple oui ci la bokk ah, ak ñeneen mais Cheikh Omar Diagne am na lu ma ci bëggoon